accès dafa ñaaw mooy dama naan xamuñu dara dirigeant yi kii xamuñu daa en tout cas joueurs yi leen raw. <laughs> dégg waaw voilà pourtant rek loolu laa di wax dama leen ne yi dañ leen dépassé. dégg nga niveau bee niveau bi dañ koy yóbbu foo xam ne kii parce que xam nga euh, euh, waa jël un expatrié nga jël un Sadio Mané exemple. tey jii Sadio Mané mu nekk au Bayern ni ñu koy préparé. Mhm. ni ñu koy préparé ni koy tegee ci kii xam nga mu respecté yenn affaire yi bu Sadio Mané ñëwee fii daje ak ay dirigeants yoo xam ne xamuñu niveau boobu. ay dirigeants nawetaan. voilà xam nga ñooñu léegi dañuy am sax problème. Mhm. pour wax sax ak Sadio Mané. parce que seen niveau seen niveau moom moo tuuti par rapport ak Sadio Mané lu muy gis. ci club yooyu parce que yooyu c'est le haut niveau ñooñu ni ñu leen di euh, traité ni ñuy traité les joueurs heure bi nga war a ñëw dégg nga euh, maanaam li nga war a lekk mhm. maanaam yow mii ni ñu waree wax ak yow mhm. xam nga loolu parce que damay dégg des fois. cooguma eh, la sax mais euh, Sadio Mané il avait commencé cette comparaison là xam mhm. naa gars dañ ko ne ko arrêté. Mhm. parce que je pense en wala muy mhm. def euh, euh, match fii ci stade Léopold Sédar Senghor commencé woon a décrier kii wu pelouse yi. stade Thiès bi la woon. stade Thiès bi voilà voilà. comparaison boobu da koy. moom man loolu laa wax nit ñi ma ne leen il faut ngeen comprendre d'ailleurs ci la ko ci la ko euh, le président de la FEDE Augustin tontu woon tontu boo xam ne wanewul lu Cheikh Dia di wax nii mm-hmm. mooy niveau dirigeant FEDE parce que daf na ko il faut moo xam ne du terrain wu Liverpool xaw voilà tu as vu xam nga c'était pas loolu kenn ko wax nous nga loolu kenn ko wax parce que foot dañu ne football dafa am football de haut niveau ak football boo xam ne maanaam amateur la soit dañuy soit dañuy nangu nekk au niveau ou bien ñun ñu nangu nekk ay amateurs. Mhm. ba tax na tey jii le joueur bii di jóge fële di ñëw il faut que mu daje fii ak ay dirigeants yoo xam ne yoo xam ne tolloon nañu ak moom niveau. tout mais lan moo indi loolu yëpp lan moo ko indi lan moo ko indi li indi lii yëpp nga gis ñu am ay dirigeants yoo xam ne euh, dirigeants yoo xam ne. Euh, euh, ma maanaam bu la bu la joueur yi di toog di wax ni en off. Mhm. liñ lay wax dañ lay wax euh, maanaam dañuy xeeb dirigeant bi dañ koy xeeb dañ koy xeeb parce que dañuy def ay ay ay affaires yoo xam ne ñoom dañuy naan noonu ñoom lii xamuñu ko ba tax na leen nag loolu foofu foofu la problème bi nekk diggante euh, léegi tey jii suñu niveau euh, dirigeant yi li ko andi nag lenn la. Mhm. gis nga tant que ñu ngi euh, gis nga dëgg la élection normal la mais euh, suñu système suñu si euh, maanaam suñu suñu suñu dirigeant yi ci club yi foofu lañ koy commencé xool. tànnin bi. waaw ci club ba. ci club balaa muy jël balaa muy yéeg. au voilà au niveau fédéral. Mmh. au niveau ligue. xam nga yooyu foofu foofu foofu mooy kii de décision yi. Mhm. centre de décision yooyu. avant amu ñu ki dafay egg day nekk koo xam ne un dirigeant boo xam ne déjà benn déjà benn un dirigeant boo xam ne. dafa ñëw foofu ñëwul foofu pour xam nga lan la pour wut si dafa ñëw pour indi malheureusement quatre-vingt-dix pour cent de nos dirigeants. Mhm. ici au Sénégal dañuy ñëw pour wut si mais ñëwuñu pour maanaam euh, indi amuñu lu ñuy indi. Mhm. amuñu xam-xam bi. parce que ñoom dañuy jàpp ne non non euh, euh, xam nga la xaalis euh, lii man damay ñëw ut si damay ñëw jël damay ñëw dem. Mhm. ba tax na dafa am ay kii xam dafa am ay tibu dirigeant da jël koo xam ne koo xam ne moom mu ngi ci football bi pendant des années. Mhm. amul liggéeyul deful dara kooku yow nga ñëw kooku nga ne ko ne kaay yow nga diriger. mu diriger nekk liggéeyam. voilà diriger nekk waa xoolal xoolal kooku kooku bu ñëwee la première chose bu dajee ak benn Cheikh Tidiane Gomis day naan ah saa xoolal man li ma tal mooy ut xaalis laa tal wala ut li may ut euh, ut li may jox xaalis. taluma fii di nekk nii di noonu xam nga esprit boobu la ñuy demee ci. alors que par exemple à l'étranger wala dans la sous-région pour ñi pratiquement ñi nga xam ne ñoo nekk dirigeant wu club yi wala ñooñu booy seet ay chef d'entreprise lañu wala ay business businessman lañu ñooñu dañuy apporter beaucoup plus ci disci euh, discipline bi nga xam ne moom la ñuy jiite que di jéem a ut ñoom. Mm-hmm. et c'est tout à fait le contraire fii au Sénégal dañ ci bëgg a Aïcha xamul xam na actualité. alors gis nga euh, euh, li intéressant ji débat bi Cheikh. Mm-hmm. mooy c'est man je crois que sa mérite. lu gën a yaatu. Mhm. mooy le profil du dirigeant. waaw c' est pas propre au Sénégal du Sénégal rek. Mhm. tey boo gisee euh, ce qui fait le le succès du Bayern de Munich. Mhm. par exemple parce que moom la ñu tudd sànq. ak Sadio Mané. mooy Bayern dafa nekk ci loxo yi la famille Bayern. c' est à dire que ñi nga xam ne ñoo def Bayern. les jours yi nga xam ne ñoo def Bayern. voilà l' équipe ci seen loxo la nekk. Juventus tenté na ko fay temps. tey dañ naan la soo xoolee club yi nga xam ne ñoo gën a triant à part les les comme mm. ñuy wax ay PSG ay Manchester City affaire nga xam ne ay club état la ñuy mais club yi nga xam ne eh, souvent danaan club yi ñoom ñoo gën a parce que ñoom ngay dégg ñoo ay problème fisc ay problème impôt mm-hmm. dañuy dañ lay Real de Madrid mm-hmm. di la citer Barcelone mm-hmm. di la citer club la Juventus club yooyu ils sont tout temps dans des pourquoi parce que c'est des clubs yoo xam ne c'est entre les mains de businessman. voilà yoo xam ne li la intéressé c'est pas l'aspect sportif dëgg-dëgg. Mhm. mais le profit c'est-à-dire que li club bi apporté comme xaalis. waaw il club bi soit euh, ni ñu koy wax sax di indi ay bénéfices ak yooyu. Mhm. soo ñëwee même en Afrique. Mhm. tey Cheikh Tidiane soo xoolee le profil du dirigeant ce débat là ça se pose en Afrique parce que am na pays yoo xam ne déjà ils ont ils sont commencé ils ont commencé à régler le problème demal Cameroun Cameroun ñëpp xam nañ ne bokk na ci club équipe euh, nations yi dàq gagné en Afrique. mais ñoo gën a bëri dirigeant. voilà parce que Cameroun mosul dem compétition te ñëw te xuloowuñ am xaalis. Ah, mm-hmm. euh, souvent bu ñu demee compétition ba ñëw les dirigeants kaso leen jëm. Mm-hmm. le Cameroun est comme ça mais ce qu'ils ont fait mooy jël Samuel Eto'o. Mm-hmm. nga xam ne il a fait une carrière extraordinaire au niveau mhm. international mhm. ancien joueur de l'équipe nationale xam les problèmes ñu confie ko la fédération mhm. c'est vrai il a encore des problèmes mais en tout cas mi ngi def lu mu soo demee Mali tey le football malien de en plus c'est entre les mains des anciens internationaux même ñu nekk Europe ak yooyu soo demee euh, euh, Guinée Guinée gii ñu gën a gën a jege euh, tu as le bonjour d'Ablaye Dabo on parlait de toi hier <laughs> mais loolu ñun on peut pas échapper à ça. c'est vrai que euh, un profil comme El Hadj Diouf kenn du ko jox une fédération de football je suis désolé je n'ai rien contre lui mais tey il des jours de l'équipe nationale. waaw la génération de 2000. yoo xam ne tey dañu waroon a encourager à être dans la fédération. et am prétention jël fédération bi. mais c'est vrai parce que ñoo gën a mën a gérer un Sadio Mané en équipe nationale. que merci parce que xam nañu mais est-ce a tuddee. voilà c'est ça c'est le système. xam nga système bi la système bi la. système bi. Mhm. xam nga euh, bi Madi Madi maadi bi muy xëccoo ak Augustin dafa taxaw bi saa mu ne ko Madi mu ne ko Madi. Madi ce qu'il fait pour le foot Augustin dafa ko. voilà mu mhm. mhm. ne ko gis nga. dëgg dëgg am nga qualité yëpp yow soxloo moo doon gën a jege Sadio Mané sax yow soxloo xaalisu football bi soxloo nangam yow noonu yow da nga ñëw apporter maanaam sa expertise bi nga def ba yéegal benn centre de formation ba mu nekk international ba créer un Sadio waaw waaw ba créer un Sadio waaye mu ne ko système bii doo fi dugg. ko waxoon nga ko waaw ma ne ko système da ngay sonnal sa bopp lii nga kii bi doo fa dugg. mënoo mhm. fa dugg da ngay sonnal sa bopp parce que ñooñu dañ ko verrouillé dañ ko verrouillé man xam nga lu ma doon wax ñoom gis nga man lu ma doon wax ñoom Augustin ak ñoom euh, ak ñoom Ablaye dama leen ne xoolal wut leen ay dirigeants yoo xam ne soxluñu dara maanaam footballu Sénégal. Mhm. soxluñu ko maanaam ñooñu dañuy ñëw pour apporter. et jéem nañ ko def jéem nañ xool jéem nañ ko def de jéem nañ ko def jéem di di euh, euh, maanaam encourager euh, ba ci vote yi ñu jéem a di naan non non yow non yow xoolal Moustapha Moustapha dégg nga kii la chef d'entreprise la. Mhm. na nga bon yow Serigne noonu non xoolal yow xoolal bàyyi Moustapha mu jàll. Mhm. mais gis nga bi ñu defee système boobu Moustapha. gis nga dañ ko def ma taxaw ci ci AG ba gis gaa yi di préparé gars yi commencé dugal ñooñu. Hmm. ñooñu mën na leen sama taxaw sama ne ne gi nga yéen ñii. Hmm. dugg ngeen. doo leen fa yàgg. <laughs> ñu ne ma non on est venu pour travailler ils vont nous laisser ma ne leen. rafet njoor waaw ma ne eh doo leen xam football bi na ma ne xoolal. leen travailler ma ne ah, di ngeen daw di ngeen génn parce que parce que dañ leen di pousse. Mhm. ngeen génn parce que yéen. Mhm. waaw maanaam ni ngeen di pratiquer li ngeen di liggéey. Mhm. ni ngeen buggee avec euh, transparence boobu. dégg nga arrangé wu leen wala arrangé wul ñii. dafa am ñoo xam ne dafa am benn lobby. arrangé wu leen ti fédération yëpp la nag. Mhm. waxuma football kese dafa am benn lobby boo xam ne maanaam lobby boobu euh, ñoo ñooñu seen intérêt la. Mhm. affaire bi seen intérêt la la bon. xoolal la preuve léegi fédération sénégalaise bu football ma jox benn exemple bu ñuy dem ay euh, campagne ñu dem ñu ne Serigne bii Serigne du dem Moustapha mooy dem. Mhm. Moustapha bu demee bu ñëwaatee. sëriñ bu commencé waxee gars yi ne ko waaw beneen campagne bi yooyu yaay dem waxoon nga ko fii ah bi ñu joxee prime yi waaw waxoon nga fii ne ñi di kaas ñëpp bi ñu ñëw duñu wax parce que nañ leen jox waaw non non parce que système bi la c'est le système léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoom dañoo am soxla ñu dara nangam ñooñu dañ leen di buntu xataal ba après duñ fa mën a toog mhm. duñ fa mën a toog parce que dañ leen di euh, dañ leen di euh, dañ leen kii alors léegi euh, coach pour mën a régler situation boobu hmm. boobule lan moo ci war a nekk rôlu rôlu rôlu ministre de la ministre des sports par exemple non c'est que xam nga système bi xam nga affaire bi fan la il faut que ñu restructurer club yi comment ma ci club bi. club yow club xam foofu la ñuy commencé. Mhm. foofu la dirigeant bi di commencé. Mhm. pour pour mën a yéeg mais club boobu. naka nga mënee xool ngay jël un Cheikh Tidiane Gomis. boo xam ne liggéeyul nangamul yow nga def ko un dirigeant de club. mais non jëlal un Serigne euh, Serigne Gueye boo xam ne moom leer na la ne moom bu ñu nee tegal vingt cinq millions ci table bi mu teg ko fa. maanaam dafa crédible. kooku noonu noonu la def. comme c'est le euh, kii euh, mooy kaaw Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire pour être foofu dirigeant laaj leen. ab Cheikh Tidiane Gomis du fa nekk dirigeant de dangay am xoolal chef d'entreprise ngay doon wala kenn nangam wala nangam yow nga ñëw taxaw. Côte d'Ivoire sori na Guinée Conakry. voilà les les les plus grands clubs sont entre les mains des grands chefs. des chefs d'entreprise des capitaines d'industrie mm. ñooñu ñooñu parce que ñooñu bu ñu ñëwee ñooñu dañuy apporter. apporter quelque chose. xam nga ñooñu dañuy apporter xam nga lan laa mm-hmm. mm, que gagné yi Sénégal gagné. Mm-hmm. année yi ñu génn. Mm-hmm. bon diggante daaw ak ren. la naaru Algérie bi waxoon rek ñoo xam ne mosu ñoo gagné dara diggante daaw ren ñu gagné lépp. Mm. <laughs> Sénégal diggante daaw ren on a tout gagné. Ah mais gagné yooyu dama ragal mu nekk l'arbre kii cache la forêt xam nga lu tax. parce que gagné nañ Coupe d'Afrique ak ñoom Sadio Mané. Mm-hmm. Cheikh yaa gën a xam ne. Mm-hmm. li ko li ko maye peut-être c'est vrai li fédération liggéey nañ état bi liggéey nañ. Mm-hmm. mais dañoo am chance am une génération de footballeurs yoo xam ne ñi jëpp ci ñoom ñun investir ci ñoom ñoom Abdoulaye Diallo ñoom euh, Kalidou Koulibaly ñëpp ñoom Nampalys Mendy yooyu jour <laughs> Ablaye Bob boobu ah. ñëpp ci ñoom ñoom ñun investiruñ ci ñoom lu bari dañoo mën li ñuy mel ñu am chance su ñu accepté ñëw jouer ak ñun ñu gagné soo jëlee l'équipe nationale locale bi gagné CHAN bi bërki mhm. démb mhm. ñoom Cheikh Tidiane taxawuñ ci lu bari mhm. mais CHAN bi li tax Sénégal man koo gagné Cheikh Tidiane mooy les centres de formation mm. les écoles de foot ay génération foot Euh, jàmbaar ak je ne sais pas Dakar Sacré-Cœur yu ma xamul yooyu. Mhm. ñoo formé joueurs yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo may doole équipe bi ba mu gagné. Ah tey ji les clubs yi nga xam ne ñoo waroon a fournir dëgg dëgg dëgg doole équipe nationale locale. nga xam ne ñooy club yi am ginnaaw ci réew mi. Mhm. mais club yooyu Cheikh tey je ne pense pas que.

prendre comme ni ñu wax la mayonnaise que la mayonnaise prenne. Mhm. que la ba les clubs yi nga xam dañoo am ginnaaw. mais li centre de formation yooyu man ñu mën ko parce que Cheikh bul fàtte ne club yooyu ay muy jaraaf njàmbur yeneen ak yeneen mais dañ daa am ay école de foot. tout à yoo xam ne dès la petite catégorie. Mhm. da ngay commencer di jouer jaraaf affaire di ci màgg di ci màgg mais léegi je ne pense pas que am na ba léegi. non non amul euh, non waaw Moustapha euh, dans ci football professionnel. Mhm. Euh, maanaam boobu. mu dañ ko bafoué. dañ ko bafoué. ce qui veut dire xam nga lan la. Mhm. dañoo ne euh, maanaam euh, kii bi cahier de charge bi. oui cahier de charge bi dañu wax ne. carrément centre de formation yow. Mhm. Njàmbur de Louga da ngay am. Mhm. da ngay am centre de formation mu ngi ci. lan moo tax léegi nag loolu respecté ñu ko buñ ko respecté woon tey jii sant mhm. de euh, club yëpp dañu am centre de formation comme Jàmbaar comme Génération Foot comme Dakar Sacré-Cœur loolu nag tey jii tous les dirigeants ñu xam mhm. nangu nañ ne mhm. dégg nga nangu nañ ne comme euh, ki ma doon waxtaan Ablaye Fall mooy président Ligue de euh, Diourbel mu ne ma mu ne ma gis nga ñuy waxtaan mu ne ma gis nga liggéey bi yëpp centre de formation yi la et tey jii xoolal même l'équipe nationale A. bi ngay gis. équipe nationale A bi ngay gis. mais xoolal rek xoolal joueur xoolal xoolal ossature kii bi. joueur yu bari ci sa yi jugee Sénégal. ci centre de formation lañ jaar. Cheikh euh, euh, dama doon laaj démb Ablaye daabo mhm. parce que démb ñëw na sama bureau. ma koy laaj lan moo tax Sénégal amoon difficulté pour gagner. éliminer Guinée par exemple. Mhm, mhm. ñu dem jàpp defe Sénégal ren jii Guinée la éliminer. waaw waaw mu ne ma mu ne ma le jeune guinéen. lay Dabo mu ne ma le jeune guinéen techniquement souvent il est meilleur que le jeune sénégalais le jeune guinéen dañoo dafa mën a football techniquement mu ne mais Guinée seen problème mooy technique tactiquement ils sont très faibles Sénégal moo leen mën foofu xam nga lu ko waral ma ne ko ah, mu ne ma parce que Guinée la formation dafa faible nii nii Sénégal di forme comme ay génération mhm. foot euh, nangam ak nangam naam Guinée amuñu ko voilà mu ne ma mu ne ma dama la jox seetlu bu soo xoolee équipe nationale Guinée mosoo cee pourquoi parce que ñoom ci mbedd la ñuy jouer ak de petits camps mooy petits camps yi ah, ah. ñoom ñëpp ils sont de ah. mais un grand gardien doo ko gis parce que bu ñu dee football amuñu soxla wuñ ko mais mais regarde cette réalité là Cheikh tey jii ba dès que Sénégal am les centres de formation yi mu war a am pour mën a forme des joueurs tactiquement parce que ñun football on est tous doués enfin ñu bari ci ñun bokk. Hmm. Cheikh Tidiane mënoon naa football. Hmm. Serigne je ne sais pas man mënoon naa football. mais góorgóorlu la woon moom góorlu woon on est tous doués. <laughs> mais la formation tactique bi nga xam ne moo moo lay may nga <laughs> nekk nga nekk un grand un grand un grand joueur am amuñu ko woon. un Sadio Mané techniquement il est il est naturellement doué. mais techniquement il a fallu qu'on fasse un travail. voilà c'est ça. loolu daf moo manqué tey jii nii ci suñu ci suñu ci suñu. ci suñu non loolu laa lay wax gis nga Moussa. gis nga te loolu li nga wax sax moo koy réglé mooy le cahier de stade de la ligue. mooy des centres de formation dans les. dans jeex na nag xoolal gis nga gis nga gis nga le vrai euh, le vrai projet. Mhm. bu euh, football professionnel lu Sénégal. vrai projet bi. Mhm. cahier de boo ko xoolee. jàdd nañ ko bu yàgg. kenn respecté ko loolu laa doon wax man maa xool dama ne dirigeant yi yéen ñëpp yéen a ngi nii wax leen ma ci seen symposium ma ne yéen ñëpp wax leen ma dama leen laaj yéen ñëpp kenn ci cahier de bi ñu teg. Mhm. ban club fii moo respecté yëpp à cent pour cent. soit kii day am lii doo am lii. Mhm. kii am lii kii doo am lële. kenn respecté ko et li ñuy soxla yëpp. pour développe un club. pour structurer un club. mu ngi ci cahier de charge bi. il suffit tout simplement club bi restructuré wu adapté wu euh, kii euh, jël kii am adapté ko ak cahier de charge bi. jeex na parce que cahier de charge bi dafa wax benn. Mhm. dafa ci am le statut du dirigeant. Mhm. statut de l'entraîneur. statut du joueur. mu ngi ci centre de formation mu ngi ci siège. siège Moussa est-ce que xam nga ne am na ci ay club professionnel yi Ligue 1 Ligue 2. Hmm. Euh, euh, amuñu siège sac. Hmm. wala wala saalu président mooy siège. voilà voilà saalu président <laughs> non c'est non dëgg la dëgg la amuñu ko. do ma ne siège da ngay laajte ñi ci am siège barewul ñi ci am terrain dañ la wax ne il te faut un terrain amul. il te faut au moins budget temps. amuñu ko amuñu ko. véhicule de transport. mais mais mais coach coach démb démb démb rek ci basket bi am na ñu jóg ne euh, dirigeant yi fi nekk nii yi jiite fédération bi nii nañ leen abal loolu moom loo ci wax yow. non xam nga xam nga xam nga xam nga c'est gis nga loolu loolu laa lay wax dama ne la euh, tey jii euh, sànq Aïcha mu ngi koy wax di wax ministère des sports gis nga dinaa la wax benn affaire gis nga Moustapha AG yi ngay gis yëpp. yii di am fii Sénégal ministère de sports dafa ci am ay points yoo xam ne da ciy gëmm. moo waxal mu am problème mu yenn dirigeant yi <coughs> daf ci am yoo xam ne points yoo xam ne daf ciy gëmm. démb maa euh, ki crédit rek maa ngi koy wax ci petit déj. ma ne. tey jii bu ñu doon xool yoon. Mhm. yoon bu dee normal texte euh, dama ne texte football. man naa ko wax dama ne teg ci football bu ñu ko doon xool. Mhm. fédération sénégalaise de football bi dafa illégal. Mhm. dama ne doo bu bu ñu doon xool texte laa wax. et euh, club yu bare. club euh, fédération yu bare. ci même waa ci même situation lañu xam nga lu tax. parce que euh, euh maanaam AG assemblée générale. dafa ne assemblée générale. Mhm. mu ngi commencé ci année bi. fédération balaa muy âgé. Mhm. démembrement am yi dañuy âgé ba pare. ce qui veut dire. Mhm. mu ngi commencé ca club mhm. club bi day âgé. bu pare et âgé boobu supervisé par le ministère des sports. et par la fédération sénégalaise de par la fédération sénégalaise de football. xam nga supervisé nañ kii. bu paree ligue yi âgé. Eh, eh, après ligue yi léegi nag ñu dem de fédération. mais club yu bare âgé wuñu donc. xoolal loolu rek club yu bare mhm. âgé wu ñu toog nañu dix ans vingt ans musuñu âgé ko balaa ñu jël fa benn nit mhm. ne ko de yooyu yaa dem yooyu yaa dem représenté club bi mais kooku kooku mais kooku légalul su demee sax mën nañ ko dóor mais loolu kooku légalul mhm. parce que ci yoon euh, loolu léegi la représentant bi ci AG bi la war a génne ci AG bi lay génne un représentant ci AG da ngay gis ci AG bi dañuy naan bon euh, Moussa yow njàmbu yooyu yaa ñuy représenté au niveau de la ligue de boo demee ligue ligue ba bu ñu âgé ba pare ñu waaw waaw ba tax ñu ne ay eh, yow ya yow mii yow yow la ñuy mandaté fële mhm. noonu la war a demee mhm. mais fii da gis ay fédération yoo xam ne au nom de tey ji mhm. léegi nag ministère nag bu ñëwee bu envoyé nitam kooku au lieu mu def xool yi ne ah Moustapha bon ok ñu ne leen nag euh, euh, euh, yow mii ci AG bi pour nga dugg est-ce que yow mii sa club âgé na. bu âgé wul doo dugg. Mm-hmm. amoo droit dugg. parce que légal loo. voilà loolu mooy indi le problème benn bu ci légal rek lépp mën doo dégg loolu moo tax ma ne la fédération football commencé football. Mm-hmm. parce que football am na ci et puis xam nga gaa ngi gaa ngi jaarale leen ci football. waaye nga daanalee foofu rek waaw loo tax gis nga loolu loolu loolu moo tax ma ne leen. Mm-hmm. Euh, maanaam dañoo njuuj njàcc ba pare. xamuñu daal dañoo boole ñaar yi la ñu boole xamu na xam nag la ñu ñu seen njaaj mooy que fédération. Hmm. mooy que ñoom seen jëmbu bopp ñoom seen mandat ñoom ñoom seen mandat déjà légalul. Hmm. dégg nga bu ñu ñëwee ñëw taxaw euh, euh, li ñuy def moom mooy boo yëkkatee sa loxo. Hmm. nga ne non attends gars yi dañ lay maanaam gars yi dañ lay jël teg la fële duñ la bàyyi yow nga wax. ce qui n'est pas du tout normal. donc ce qui veut dire aujourd'hui tey jii. Mhm. ñun pour ñu euh, pour ñu pour ñu pour ñu am ay dirigeants. donc il faut que ñu jël un peu modèle u euh, Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire dañuy naan voilà léegi nag voilà euh, celui qui veut être dirigeant de bu ASEC d'Abidjan voilà il te faut au moins teg ci table bi vingt cinq millions. boo ne waaw yow vingt cinq millions yow mii dirigeant la. Mhm. boo ko amul puusal na la yoo doo nekk dirigeant. modèle boobu ñu xaw ko jël tuuti. nga xam ne léegi ñun ñi suñuy ñun suñuy dirigeants yi dinañ nekk ay dirigeants yoo xam ne. léegi nag euh, euh, ñi nga xam ne ñoom dañoo am ñoom dañoo am moyen ñëw ci football bi. Mm. mais ñooñu barewuñu fédération. parce que booy xoolaat réunion yi ñu ñëw rek. club ngi nii di ruiner nit ñi kay jëru ñu dem. moom laa lay boo ñëwee fédération pour ñëw rek. réunion réunion fédération xam nga loolu moom mooy def. tapale boo ñëwee réunion da ngay euh, kii. réunion boo ñëwee il faut sa tëgg amul daaneel. il faut la ñu. ma jox la per jëm. <laughs> réunion la per jëm. réunion fédération looy doyee per jëm. mën ta ñàkk na dañuy ñibbi. ah ah loolu dirigeant la. dañuy paas fekkente ni ci bëri ñoom amuñu oto nag. dañuy dundee dañuy dundee mbir mi laataa ñoo dundal mbir mi. mbir mi voilà ah, ah. kon nag mu ngi noonu. waa accident bi nañ dem rek. léegi koy koy koy tàggu. non non eh, tàggoo ma kenn léegi nag man. xam lu may tàggu moom mooy ñi sonn ci euh, kii euh, ci ci sport bi. ñi ci sonn. dégg di ci jël seen alal di ciy teg. après dina ba ñu leen di buntu xataal. léegi xaaral xaaral xool kilifa bi moom lu mu wax. alors euh, kon euh, pare nga jërëjëf euh, coach ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci lu am solo li nga xam ne indi nga ko tey par rapport ak tànneefu dirigeant yi loolee sax moo daal di ndar keppee pàcc gu njëkk gi dañuy amal une courte pause xaw naan café loobu laataa ñoo dalal suñuy gan pour mën a waxtaanee royuwaay ak miroir de l'islam penco di seen émission bu ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci actualité ayubés bi ak